gars yi ñu ngi leen di ziyaare ci dimanche bi ñu may leen tuuti temps rek ngeen ñëw ah, boo ku dugg rek mu partagé ku dugg rek séddale partagé waaw partager leen ko mu yaatu comme ça ñu am ay kadd yu ñu yëkkati xam naa du gudd waaye amaana dina am njariñ ci ñun voilà amaana dinañ ko mën a jariñoo xëy du gudd nag waaye dinañ ko mën a jariñoo partager leen bu baax a baax ku dugg rek nga partager ku dugg nga partager ku dugg nga partager sa gatsa gatsa bi defe naa moo war de ah gatsa gatsa voilà ñu noonu voilà ku dugg rek nga séddale voilà ku dugg rek nga partage ku dugg rek partage xam naa nag du tee euh, comme dëkk day am actualité te tey dimanche la yéen ñëpp yéen a ngi ci seen kër yi euh, donc euh, dinaa leen indil rek tuuti update ci porte-parole yi Marème Faye bi voilà donc dinaa leen aussi jox. dinaa continuer nag ci waxtaan bi parce que loolu du suñu maanaam totalité waxtaan bi du loolu voilà waxtaan bi loolu taxu koo jóg mais du tee dinañ ko ci brossaale waaw parce que li tax ñu ko ci brossaale mooy c'est important xam nga boo nekkee ci ab réew voilà No, we're only going to be like 20 minutes late. Because technically, if I pick you up from there, we're only 20 minutes away. So... we're not gonna bii that late. They they're gonna be alright. Xam nga sa affaire Sénégalais they're gonna be a little bit they're gonna be waiting. I apologize. parce que boo xoolee gis nga mile yi bariwul sax it's only thirteen miles mais embouteillage xam naa dafa am accident bu ndaw ci yoon bi rek donc embouteillage bi moom a téye ñoom. donc gars yi Ah, damay ñëw rek ci mbirum porte part yi maam ay firnde ay ay clou yu ma ci jox ay clou voilà li xew xam nga ñoom euh, madame porte part yi Marème fay Sall bu déggee lii moom dina xam te moom dina comprendre ne ah ñii de nand nañu mbir mi te lii problème la ça est un problème parce que bu ñu nekkee ci ab réew te ñu seq ko ak ay bandi ngeen xam yan façon nit lañ ko seqal ok tremblement de terre au palais de la République du Sénégal une vidéo de Marème Faye Sall avec avec damay tëb nit ki parce que bëgguma joxe li nga xam ne moo nekk ci vidéo yi avec va faire tomber le régime de Macky la scène s'est déroulée dans un hôtel à Dubaï Madame Faisal avait pris ses amis et certains artistes pour aller assister à une cérémonie da ngeen di déglu de culturelle une de ses copines une de ses copines kenn ci gurupu xarit bi a placé une caméra cachée dans la chambre voilà léegi nag ba mu guddee nee nañu quand la nuit gis nañu ci caméra bi ay xibaar léegi nag comme ni ma leen ko waxee duñu wax lépp dañuy junj rek ñoom ñu dégg mais mbir mi Dubaay la xewee ma nga xew ba Marème Faye Sall deme ànd ak ay jéegam ba pare nag invité ay artistes pour fasal benn affaire culturelle nee nañu Macky Sall est dans un état très furieux contre sa femme Macky mere na ko lool ok may leen ma tuuti rek ma xool sama jaar-jaar yi ah embouteillage voilà non low level ok c'est bon voilà Macky est dans un état très furieux Amadou Sall le fils de Macky Sall est prêt à payer dama leen di wax lii de avec information sûre ndax keroog ba ñu waxee waxu vidéo bi ba léegi jot naa téeméeri appel ak preuve nag ils sont payés prêts à payer tout prix pour que cette vidéo na sorte pas pare nañu pour fay bépp njëg pour vidéo boobu bu mu génn yéen a ngi dégg ñoom pare nañu débloqué bépp njëgu xaalis pour bu vidéo boobu génn après ñu ne tur bi damay leb encore tur bi ñu wax turu boroom ñu ne va secouer la monde entier comme maanaam aha aha aha va secouer le monde entier parce que du ma joxe lépp xam nga boo joxee clou yi yëpp dañuy préparé wu ñoom ay bandi lañu tem ñu préparé wu ñu ne leen bi fake laak montage laak xam nga mais moo tax du ñu joxe clou yi dañ leen di bàyyi ba ñoom ñu def seen montage ñun ñu génnee vidéo xam nga ñoom mënuñu ne montage la ba ñu indi nit ki nga xam ne moom la ma dem sekkal loolu mënta nekk boo nee montage la mënuloo xam kan la sekkal xam nga boo xamul nit ki ki mu sekkal manoo def montage léegi nag ñoom bu ñu génnee vidéo rek ak beneen nit yéen di ngeen xam mooy kan mais pour vous dire que c'est les choses qui se sont déroulées e c'est des choses réelles parce que ñu bari ñoo may woo fan yi ah, vraiment rafet naag rafetul ah premier dame la ma ne leen première dame bu joxee Kumba Njaay bi te tegu ko ci fidélité te ñu nekk ci ab réew ah dañuy xeex ak moom de loolu mooy dëgg premier dame bu décidé jël Kumba Njaayam bi wanteer ko teg ko ci mbedd ba ñuy jël ay doomu sénégalais yu diñ yaakaar ne jikko bi nekk ci ñoom moo nekk jikko yi nekk ci ñële ah en tout cas lenn da dinaa leen ko wax pale bi mi ngi yëngatu léegi nag ndax pale bi dina daanu wala du daanu loolu ñoom ñoo ko xam waaye man naa leen ne pale baa ngi yëngatu téléphone baa ngi toj bu ma leen ne téléphone baa ngi toj rek xam leen ne téléphone baa ngi toj voilà léegi nag ñoom xam nañu ñoom am nañu joxekatu am nañu gone goo xam ne maanaam liggéeyam yëpp ci réseaux sociaux yi mooy wane ay awra wax ay awra jàmbur moom la ñu fay temps yi pour mu leen di saagaal mooy waa jooju defoon taatu neen ba noonu jeune boobu nekk fële ci Europe te mu mësoon simmi tubéyam nu mu tuddati sax te ñu ne dafa am far xaw ma wóoru ma nag dañu ko dañ ko fi jiiñ far rek mu simmi tubéy bi di di waat mooy mooy mboot moomu ñu yor Europe te mu leen di saagaal kooku di xawee sutura jàmbur yi léegi kooku di xawee sutura jàmbur yi ñoom nañ ko jox vidéo porte Paris bi ndax moom vidéo rek lay wone xam ngeen man amagum naa ma jomb ndax keroog ba léegi maa ngi hésité xam nga ñu ngi hésité am na loo xam ne ñun bokkul ci suñu ay jikko du duñu ñëw rek ci réseau commencé wane ay Kumba Ndiaye yu jàmbur ay Aana Ndiaye ay ay Mare je ne sais pas wala ñu tuddee ko Mariam njaay waaw Marema ah. ñu tuddee ko Mariam Diagne voilà mënuñoo def loolu léegi nag kom ñoom ay délinquant lañu ci ay banditisme lañu jox te ñun ci gatsa gatsa lañu nekk léegi lu waay kam nga bootee ko say doom wax naa leen ko avant waxaat naa leen ko nee naa leen tànk tooñ mi ngi am fay fayu dina am loolu nangeen ngeen ko xam tànk tooñ mi ngi am fayu dina am Aysatu Njaay <laughs> waa kon ñu tudde <laughs> Ana Fay <laughs> non ah sa gars yi xam nga mënoon naa jaar ci digg bi mais gars yi dañu ne ñu wodd kàddu yi dañu ne ñu wodd kàddu yi léegi nag euh, tout tout vient du plan du tout puissant maanaam nee nañu lii lépp ndeysaan doole yàlla Karim Gaston Mbengue tamit voilà defe naa dégg ngeen ñun ñëpp a ko déggandoo état am donc euh, moom it dégg naa góor ngi góorgóorlu pour mën a jéggalu kooku di Seydina Ousmane ndax waxoon nañ leen ko nee nañ leen soit yéen ñëpp di ngeen faatu wala ngeen am ay mujj yu parce que Marème Faye Sall manul nekk ci Sénégal jël milliardu sénégalais yi sàcc suñu kër yi di ko jox ay gendarme ak ay police ak ay juge pour ñu faagaagal benn doomu jàmbur bu deful dara benn doomu jàmbur bu waxul deful Ousmane Sonko ñu ñëpp xam nañu waxul deful tooñul kenn laalul kenn moom ndeysaan bëggul sax yu mel nii moom bëggul ku ko xam xam na bëggul sax yu mel nii Ousmane Sonko waxoon na leen ko nee na leen moom du mas a attaqué Macky Sall ak famiyam waaye ñun comme dañu nekk ci réseau yi ñu connecté lool branché lool xam ay nit su ma leen waxee nag man man la wax de Tunkara waxuma leen keneen su ma leen waxee takk leen ko téere takk leen ko téere su ma leen waxee rek li ma wax takk leen ko téere masiba naaru lay la li ñu yor day daaneel état parce que am na noo xam ne boo ko génnee ñoom dañ koy banaliser parce que ay bandi lañu dañu yor seeni ay communicateur fay nañu tele adduna bi yëpp pour ñu yàq réew mi voilà dañu jóg pour taal réew mi ñoom taal Sénégal la ñu jóg pour def waaye am na loo xam na ñoom buñ ko defee ñun buñ ko defee rek ñoom dañuy profité jël ko daw moom ne aa ah, wala ñun defuñu ko wala ñoom ñoo def lii ñoom ñoo def lale déedéet ñoom ñoo génnee lii non non non ñoom ñoo ko génnee ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ parce que waxoon nañ leen ko nee nañ leen yéen da ngeen tooñ wàlliw parce que yàlla ni muy leeralee mbir mii moo xaw a doy waar parce que mbir mi euh, voilà déclaration Ousmane Sonko nee na tey day def déclaration à vingt deux heures loolu mooy fii ak benn waxtu ci kanam wala ñaari waxtu benn waxtoo genn wàll ah ak benn waxtoo genn wàll Seydina Ousmane mu sell mi dina ñëw def moom déclaration donc li nga xam ne dafa concerné mbiru justice ak Ousmane Sonko ak li mu war a def suba loolu dama koy bàyyi ba moom mu prononcé wu moom bu prononcé woo ba pare man ma soog a prononcé wu ci loolu waaye bëgg naa sénégalais yi ñun ñëpp ñu connecté wu ñu connecté ñu xaar ku sell parce que moom mi ngi ñëw pour prononcé wu à vingt deux heures donc comme moom day prononcé wu à vingt mënuma wax lu bari ci loolu mais li ma mën a wax sénégalais yi mooy moo bi ngeen gis ma bind ko mooy la résistance il faut ñu résister booy xeex ak groupe Samba Boy wala groupe bandi il faut nga préparer say ngànnaay nga résisté parce que gis nga bu ñu résister wul dañuy am regret li ngeen gis temps yëpp ñuy jàpp ay nit jàpp ay doomu gor di leen sosal di leen fenal ah di leen tëj di leen tijji waxoon naa leen ko fi ba ñu jàppee Babacar Touré defe naa tey dégg ngeen Babacar Touré annonce bi mu def fële ci wal fajiri waxoon naa leen biñ ko fi jàppee ci affaire u nappel nee naa leen Babacar Touré intéressé wu leen Babacar Touré ce n'était cible Ousmane Sonko moom lañu ñu jàpp waaye maa ngi leen di wax maa ngi avertir doomu sénégalais yeg sénégalais yépp Ousmane Sonko bis bu ko Macky Sall tegee loxo wala mu jege ko dinaa toj Sénégal dama leen di wax rek dinañu xeex nag lakkal leen dëkk bi ba mu jeex takk waaye dinaa toj Sénégal dama leen di wax ngeen xam rek Ana Faye moom dina ne dina saf sapp ci réseau yi ma wax leen la Maram fay Sall def ci Dubaï ci hôtel ba ci Port-à-Paris yi toj dëkk bi loolu wax naa leen ko déjà ngeen dégg te xam ngeen ndaw soosu tellement qu'elle est infidèle du benn vidéo moo am en tout cas il faut que vous vous préparez xam nga ñun dañuy bëgg toujours bu ñuy def Massi ba naaru laay ñu am lu ñu def ñu am lu ñu bàyyi on ne mettra jamais tous nos armes devant l'ennemi loolu xam leen ko xam leen ne suñuy du mas a génn ba mu jeex suñuy arme du mas a ba mu jeex xam leen loolu de waa porte Paris xam suñuy arme duñ ko mas a génnee mu jeex ci mbedd mi déedéet tey ñu durut bu suba ñu darat xam leen ñu ngi leen di xaar il faut savoir que les sénégalais sont prêts waxoon naa la ko Macky Sall nee naa la tu n'as rien compris da nga laaj sa nit ñi ne leen capacité waa yi lan la ñu wax la ko da nga war a laaj da nga war a laaj sa nit ñi nekk fii ne leen quest la capacité de ce jeune homme tu le sais même waay waay waay kii mu ne mais vidéo yi lu wóor la are you kidding me yow déggoo ñu xanaa mais Anna Faye ak dara nirowul yéen xam ngeen Marème Marème ñun ñëpp xam nañ ko Marème on la connaît mais lii boo ko gisee da ngeen di génn senegal ñun Sénégal amuñu république yàlla rek kay kéemaan Marème Faye Sall bis bu Anna fay bii génnee ci mbedd mi da ngeen di bàyyi senegal non Sénégal du réew man man maa ngi soog a xam ne ndeke nit pour mu ñàkki jom nit pour mu ñàkki jom il faut mu am lu ko yàlla bindee lii moo tax ñii dara jombu leen il faut vous préparer il faut s'attendre à tout il faut s'attendre à tout avec ces délinquants man man ñii dama leen xeeb non ñii dama leen xeeb trop man man bi ma gisee Marème fay Sall dans ses états ça fait mal au cœur ñii dañ dama leen xeeb trop dama leen xeeb trop trop trop te dañoo jar a parce que ay nit lañu yoo xam ne dara jombuleen leen ndeysaan dara jombu ay nit yoo xam ne ils peuvent tout faire pour l'argent non euh, Ibou John non non non non non non tu ne mets pas toutes tes armes devant non ñoom junj nañ leen junj doy na borom xel xam nga nee naa leen benn ci kaa yi benn ci kaa yi un seul benn rek ci kaa yi wax naa leen ko nee naa leen tremblement de terre au palais de la République une vidéo de Marème Faye avec ma foofu parce que bëgguma wax tur comprendre nga va faire tomber le régime wax naa leen ko va faire tomber le régime léegi ñu ne certains artistes pour aller assister une cérémonie culturelle maanaam Marème fay Sall ak ay artistes ak ay xaritam dañu dem pour atteindre pour atteindre benn cérémonie culturelle xam nga yooyu yooyu sax gars yi man ñu bari ci yéen yoo yéen la yoo affaire u Marème yéen lay bett yéen ay ay xale ngeen am na ñu bari ci yéen yéen lay bett waaye ñun ñu fekkee démb fekkee tey ñun dara ñu bett ci Marème Faye Sall boo ñu ne woon tey jii nii nii nii nii mi ngi ci hôtel bii moo jëkk moo beneen góor Marème Macky Sall mi ngi fii ak beneen jigéen loolu warul bett kenn parce que ñoom façon nit ñooñu lañu c'est des c'est des genres de personnes comme ça tey euh, waawal fajiri ndeysaan waawal fajiri maa ngi leen di saluer bëgg leen wax rek ne on est face à des personnes qui n'ont pas d'honneur ay nit lañu yoo xam ne amuñu honneur amuñu valeur amuñu discipline xam nga Sénégal dafa ne honneur valeur discipline loolu la ñu wax un peuple un but une foi mais ñoom seen but sàcc la ah ils n'ont pas de foi amuñu xol te amuñu valeur amuñu honneur amuñu valeur amuñu discipline loolu moo tax de may wax sénégalais toujours neleen waxtu dee bu jotee du waxtu dund waxtu dund bu jotee du waxtu dee bàyyi leen loolu xel il faut savoir que on ne face à des délinquants des personnes sans dignité sans respect de l'État donc ñun dañuy xeex ak ñoom ñun dañuy xeex ak ñoom de ku yaakaar ne ñun dañuy toog seetaan Macky Sall ak ñoñoom ñu continuer def seen i ay ñaawteef continuer def seen yu bon continuer def seeni ay nangam non non non est-ce que yéen a ngi fi fàttale ko woon amoon na temps ñu ne leen Dubaï dama leen di jox rek ay circonstances yéen a ngi fàttaleku woon am am na fi benn temps ñu ne leen Dubaï amoon na benn ministre boo xam ne ébat sexuel bu garaaw la am benn xale bu jigéen ci hôtel bi ba xale bu jigéen bi dañ koo mujjee jëlal ambulance parce que dañu doon drogué ci biir néeg bi boobu mambay ñaa la woon boobu moom defe naa xam ngeen mais yéen a ngi rappelé wu événement yooyu donc da ngeen di dellu ngeen dem xool tuuti ci entourage événement yooyu di ngeen gis ay mbir voilà comme ni ma leen ko waxee xam nga puzzle la lépp loo gis ci àdduna bi rek puzzle la waaye gars yi may na waawal fajiri Choromakhou Mandela Choromakhou Mandela is a woman that's eight months pregnant maanaam huit mois de grossesse ñu jàpp ko tëj ko ci biir kaso Choromakhou Mandela ñu jàpp ko tëj ko ci biir kaso ban crime la def zéro amul kirim bu mu def ñoom xaar leen ma aha waaw ooyee oh, bële bële ah ok mais wax naa la xam nga man waxoon naa la keroog nee naa la moo tax ma ma xool ko non mais maatu maatu maatu mais dinaa ko make dina dinaa ko dinaa ko make up it's no issue dinaa ko make up e eh, anken da wari ida kiringa ida do kaitin kiringa na ken tunu kamo agindi mana kamat agindi le mun kamat billahi wallahi tallahi no eh, esko kusero kunta kenya da barni ako sero kunta kenya da barni di aguindille munnaga aguindille munnaga ye tampil angatagata hiɓe yimme angatagata hiɓe yimme har saddama ɗum tamen a kendi tampille ɗo kara goa <laughs> har saddama ɗum tamen har lenki aɗen kiriya titiyay halsi ɓurdiya <laughs> nama kana e tuma <laughs> mbay mbay hoye jay mbay direct ja agata ɓire ɗo oma ren joni konka waɗi woterin kana inchallah mbay direct ji voilà est-ce que comprendre ngeen li nga xam ne moom lay wax dama ne xam nga quand tu es face à ay nit yoo xam ne amuñu dignité tout est possible te loolu mën nañu ne moo ñu dal ci kaaw waa Porta Paris Coromakhou Mandela ñoom dañ ko jàpp ba pare di ko soog a jéem a wutal dossier te dossier bi nga xam ne moom lañ ko bëgg wutal bokk na ci nee nañu ay waxu cocktail molotov xam nga temps yi ñoom dañu nekk ci seen logique ñoom ci seen logique lañu nekk il faut sénégalais yi ñu ñooy am fulla am fayda rek xam suñu taxawaay mais ñoom ils sont dans leur logique ñoom seen logique la ñu nekk ñoom ci tàppale bi ñu ne mooy seen logique mooy seen ñun nag suñu logique mooy jàmmaarloo ak ñoom parce que comme xam nañu ne seqatuñu ko ak ay nit yu diñ seqatuñu ko ak ay nit yoo xam ne bëgg nañu Sénégal avancé seqatuñu ko ak ay nit yoo xam ne bëgg nañu suñu réew mi jëm kanam ñun ay bandi lañ ko seqal ak ay sambaboy il va falloir ñun ñu jël suñu ay responsabilité waaw day falloir ñu jël suñu ay responsabilité Parce qu'à un moment donné, ñun am nañu dignité ñun xam nañu fi ñu jëm ak suñu réew mun a joo doon ñun xam nañu fi ñu jëm amaana ñoom xamuñu fu ñu jëm mais ñun xam nañu fu ñu jëm gaay coromaxu Mandela ak mama patriote Awa Diop ndeysaan ak ñeneen ñu ngi ci prison bi te jaay doole rek moo leen fa bàyyi bëgg naa aussi ma fàttali leen balaa may sori te loolu laa waroon tàmbale Euh, suñu détenu politique yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir kaso bi deux cent cinquante sept bu ma juumul pour être juste sur le nom dañuy tàmbali grève de la faim suba maanaam xiifal bañ a lekk dañ koy tàmbali suba parce que non seulement dañuy dénoncer seen seen seen arrestation ak seen emprisonnement illégal comme prisonnier comme détenu politique mais aussi dañuy ñaawlu jaay doole bi nga xam ne moom la ki sàll yëkkati di ko teg ci ndoddu sénégalais yi guddi yi ñu toll suñu détenu politique yi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi dañuy grève de la fin maanaam dañuy xiifal duñu lekk dañuy xiifal pour solidarité ak bandi ak banditisme bi nga xam ne moom la leen Macky Sall teg dañuy solidarité ak Ousmane Sonko ci jaay doole bi ak fitnaal bi nga xam ne moom la ko Macky Sall fitnaal fitnaal doomu Sénégal yi ak suñu sœur yi nga xam ne ñoom la ñu jàpp di leen dugal ci kaso bi ak suñu frère yi nga xam ne ñoom lañu topp te lépp ñun ñëpp ñu xam ko muy ci jaayum doole Ousmane Sonko dong la ñuy dox logique boobu rek mooy seen logique benn logique rek la am ñoom mooy jaay doole le président Ousmane Sonko loolu rek mooy seen logique nekkuñu ci beneen logique nag. ci logique bi képp la ñuy dox mooy Macky Sall nee na moom pare na à tout prix nañu jàpp Ousmane Sonko lum ci goree góobee ko ci mais ñàkk jàkk jàpp Ousmane Sonko nee na ci weer bii di ñëw erreur la pour moom il faut ñu jàpp Ousmane Sonko à tout prix nag wax naa leen ko junju naa leen ko wax leen ko en réalité junjaat leen ko waxaat leen ko en réalité Macky Sall nee na il faut mu jàpp Ousmane Sonko à tout prix ñun nee nañu Macky Sall bis boo jàppee Ousmane Sonko doo génn Sénégal ak bakkan ñun wax ñu Macky Sall ne deux mille vingt quatre du ko fa fek mais waxaat nañ ko ne bis bu jàppee la président Ousmane Sonko du génn Sénégal ak bakkan loolu wax nañ ko ko loolu ñun wax nañ ko makisal ñun dañu ne Macky Sall na génn ci mbirum Ousmane Sonko ba mu set Ousmane Sonko ñaanu ko dara laaju ko dara li ñuy wax Macky sàll mooy mu reculer de génn ci mbiru Ousmane sonk na ci génn ba mu set mu ngi def ay sondage waaye dañu bëgg mu xam ne on est déterminé plus que jamais bis boo laalee Ousmane sonk yow doo dund pour nettali ndax gis nañu suñu jàmbaari Angleterre yi tey macha allah. macha allah gis nañu tey suñu jàmbaaru Angleterre yi ah, sénégalais yi mbay peex mbay peex mbay peex mu Macky Sall bis bu ñu jogaatee ñun dañu daan def àdduna ci ci bu yàgg ba duñu laal suñu ay géwél déedéet suñu ay géwél dañ leen daan jox seen cër dañ leen daan jox seen respe ba mu mag ba mu mat sëkk waaye mbay peex dama bëgg ngeen xam ne ci sénégalais yi taal Sénégal la euh, ci taal Sénégal la bokk te on fera face bis bu ñu yàlla dimbalewaatee ba ñoom ñu yëngal fi ba ñu jóg mbay peex faisons face déglul mbay peex déglu leen ko mbay peex moo dem Angleterre di nee na xam nga gatsa gatsa la ñu wax dafay woote violence contre les patriotes comme day woote violence. montrer que vous êtes là. voilà mon grand syndicat. déglu leen Mbaye Pekh. bu ñu génnee génn leen bu ñu waxee wax leen. bu ñu face à face ñu doon bàyyi de. parce que yéen yéen leen am. bu leen toog ci dee leen génn. bah oui il faut sortir ah il faut se montrer que vous êtes là. voilà gars yi. yéen a déggal seen bopp mbay peex mbay peex moo génn di digal mbay peex moo génn di digal di digle di digal ay nit nee na pour ñu génn jàmmaarloo ak patriote yi mbay peex moo def loolu lii moo tax mu wax ko ndaw si macha allah suñu sœur bi. ñi ànd ak Macky Sall dañoo sàccoon téléphone bi yóbbul ko Macky Sall nañ xool ba mu neex jaara ragalul dara téléphone bi moom lu ci xoolee Sonko doo ko waa kay police indi nañ di téléphone di sàcc yi Angleterre yi ñoo ko def macha allah ñu ngi leen di jëfal di rafetlu seen taxawaay patriote fu mu nekk ci àdduna bi dafa war a mën a wone taxawaayam seen taxawaay rafet na seen liggéey rafet na te bëgg ngeen seen réew te gis nañu vraiment taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom ngeen am lii suñu mbokku UK yii la gars yi xam naa ne Sonko dina wax tey dix heures incha allahu rabbi ndax man mii moom lay xaar pour di ko déglu je l'écoute religieusement dafa fekk comme ni ma leen ko waxee munu ma wax ci li nga xam ne mooy décision suba ba moom bu waxee ba pare bu waxee ba génn après man ma ñëw ma am leeral point yoo xam ne dinaa ko ci leeral mais damay xaar ba moom mu génn wax dix heures incha allahu rabbi après bu génnee wax man dinaa dugg si waat ma wax ak sénégalais waaye c'est pour vous dire que on est prêt on est prêt à tout waawal fajiri tey notre frère Babacar Touré il a été présent. ngeen jéggal problème bi ma ci am ci sama beneen téléphone bi la nekk donc j'ai des problèmes duma ko mën a publier li Babacar Touré wax. voilà masuma manuma génne vidéo bi parce que ci téléphone bi may live nii la nekk maa ngi koy jéggalu bu baax a baax a baax ngi leen koy jéggalu waaye xam leen ne incha allahu rabbi incha allah ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw de te bis bu ñu jógee billaay Macky di nga xam ne lépp dëgg la wax nañ la ko yàgg dañ laa wax on a on t'a dit on t'a averti pas mal de fois nanguwuloo dégg wax nañ la wax la dànkaafu avertir lépp loo xam rek lu nit mën a def ak doomu aadama wax nañ kook yow te dama gëm rek ne bu ëllëgeeg si biir bu ñu jógee di jàmmaarloog yow bii yoon incha allahu rabbi suñu kilifa gu baax googu sëñ Muntaxa Basir du ci prononcé ndax bala yoon dañu am trousse maanaam trousse mooy déggoo ak sëñ bi sëñ bi moo ñaan ne Sonko pour mu delloo xale yi ginnaaw moom digle mu digleen na ñu bàyyi prisonnier politique yi prisonnier politique yi Macky Sall daf leen bàyyi woon temporairement gis ngeen jàppaat na leen ñëpp ñoom ndongo Diop ñoom ñëpp ci la ñu bokkoon ñoom Diop Taïf ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Macky Sall jàpp na leen ak ibrahim Ibrahima Gueye nay leer Ibrahima Gueye nay leer ndeysaan mooy mag ju baax jooju ngeen gisoon ku gàtt ki toujours fu Sonko nekk mu nekk fa moom ak sama xarit ba waay kii mbay ndeysaan beneen xarit bi euh, turam turam moo ma rëcc ngeen baal ma ko turam moo ma rëcc mooy Macky Sall daf ko dugal ci kaso bi ba pare dem attaqué parking am parking am bi muy jaayee ay oto di daan dooleem Macky Sall ba mu ko jàppee ba pare dafa dem attaqué parking bi yàq bagage am yëpp yàq àddina waa ji yëpp euh, maam Paate maam Paate waaw maam Paate Mbaye waaw maam Paate Macky Sall gis nañu li mu def jàpp ko xam nga Sénégal coxorte gi fa nekk Macky coxorte gi nekk ci moom moom la sénégalais yu bari mënta comprendre loolu li koy waral rek il n'a pas eu l'amour parenté maanaam ay waay juram wanuñu ko mbëggeel bi bi bi waay jur wara a woon doom moo tax Macky soxorte gi nga xam ne mi ngi ci moom tey mu nekk ci moom envers les sénégalais parce que man mënuma comprendre une personne un président la plupart moom la ñuy ne le per de la nation président la plupart loolu lañ koy woy maanaam dañuy ne moom mooy le père de la nation mais dans la cas de Macky Sall da ngay gis ne moom il a maanaam pour pour mu leer daal dafa faillir mission am maanaam li nga xam ne moom mooy mission am Macky Sall daf ko kiiwu ko daal maanaam euh, nu ma ko mën a waxee mu rafet mooy dafa fail li américain di ne fail your mission loolu moo dal Macky Sall dafa fail mission donc xam naa nag maa ngi leen di bàyyi ba ñu déglu euh, mu sell mi ba pare incha allah bu ñu dégloo mu sell mi dinaa dellu siwaat encore waxtaan ak sénégalais yi tey ñun dañu am gan diaspora bi Euh, ñu ngi dem léegi ci asa bi nii incha allah ak honorable Aïcha Touré suñu député de la diaspora moom la ñuy dem jëli ni moom laay dem jëli bu ma ko jëlee mu am ndaje ak ñun fale ci asa bi bu ñu jógee foofu ñu seeti euh, këru sëñ si quoi ñu dem visiter maanaam fépp foo xam ne jaaroon nañ fa euh, pour taxaw li nga xam ne moom mooy taxawaay bi mu ñuy taxawul ci diaspora bi maanaam euh, guléet ci député diaspora ñu gis ko mu ñëw campagne ñu fal ko biñ ko falee mu dem Sénégal defal ñu fa li lu jaggi dayoo ci assemblée nationale bi ba pare ñëw fii ci Amérique encore une fois pour jaaraat nee na ci jaar-jaar yi mu jaaroon yëpp bi muy wut pour rendre leen compte lii moo ñuy won ne incha allahu rabbi bis bu ñu nit ñu jub jëlee réew mi réew mi dina am avenir maanaam dina am euh, dinañu am taxawaay parce que lii muy def nii dafa rafet c'est trop beau mu ñëw campagne ñu fal ko bañ ko falee mu dem mënoon naa ne damaa jàpp maa ngi ci seen liggéey maa ngi def li ngeen ma sant non non non mu bàyyi loolu yëpp encore bi ñu tëjee session mu ñëw encore ci diaspora bi bëgg jaaraat ci jaar-jaaram yi vraiment pour am ay compte rendu yoo xam ne mi ngi koy defak ñun def na ko en zoom maanaam jaar def na ko zoom mais mi ngi jaar encore am personne nii pour defal ñu ko donc vraiment mënuñu lu dul rafetlu ko loolu moo tax xam naa ñu bari nañu laaj seen bopp lan moo waral colu dimanche bi loolu moo ko waral voilà dañuy dem dajeeg honorable ay Aïcha Touré suñu député de la diaspora incha allah pour am ak moom waxtaan. donc ñu ngi leen di invité yen ñëpp ci Aza on sera là-bas dans quelques minutes bu soobee yàlla ci Aza bi donc képp ku mën a ñëw rek na nga ñëw yéen ñi mën a ñëw voilà ñi mënul ñëw tamit euh, comprendre nañ leen. voilà donc ñu ngi dem ni ci Aza bi léegi léegi incha allahu rabbi waxtaan ak euh, sénégalais yi donc gars yi maa ngi leen di jaajëfal di leen joxaat rendez-vous. ci kanam tuuti xam naa moom it waxtaan bi dina am yoo xam ne dinañ ko ci filmer jël ci ay photo voilà après ñu partagé leen ko euh, mais euh, waxtaanu Ousmane Sonko bi moom dara du interférer ak loolu incha allah ndax loolu dañ koy déglu religieusement bu ñëwee ci waxtaanam comme ça ñu mën a ñëwaat ak sénégalais yi pour def benn euh, boucle compte rendu bu gàtt incha allahu rabbi gars yi suba dernier chance la exactement ni ko suñu euh, jeune bi bindee suba j'espère que yéen ñëpp jóge ngeen ci dëkk yi ngeen nekk <coughs> rallier Dakar voilà waxoon naa leen ko donc tey du pour woote leen ngeen rallier ndax keroog lañ leen woowoon pour ngeen rallier ndax euh, ñu bari ci yen xam ngeen ne tey boo leen wutalijee Dakar lu bari ci ñoom dañuy daal di tëj yoon yeeg yooyu duñ leen bàyyi pour ngeen mën a jàll voilà donc loolu tamit am na ñu bàyyi ko xel duñ leen nangu bàyyi pour ngeen jàll ndaa ñoom ci banditisme la ñuy dox duñ leen bàyyi pour ngeen ñëw wala donc pour le dañuy préparer incha allahu rabbi euh, xaar moo d'ordre bi donc naa naa tey ci loolu tuuti rek ba ñu déglu kilifa gi incha allah bu waxee après dinañu ñëw euh, waxtaanaat ak yéen incha allah lépp lu ci mën a nekk rek dinañ leen ko indil comme ça ñu partagé ko donc gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat rendez-vous ci kanam tuuti rek incha allahu rabbi ku sell ki bu pare bu waxee ba pare incha allah ñu ñëw ñu farampàcc waat wala farampàcc ñu tasaat waxtaan bi incha allahu rabbi donc résister la résistance est un droit face à une dictature voilà donc euh, ñun voilà merci merci merci voilà yéen ñëpp daal rallier leen ngeen toog ñu xaar mot d'ordre bi ci kanam tuuti encore di ngeen ñu déggaat mais suba Macky moom mi ngi daw na dem na Angleterre moom toujours bu dëkk bi di yëngatu day daw génn dëkk bi waaye incha allahu rabbi waa Angleterre aussi pare leen comme ça lu ci nekk rek bu mu fa am jàmm ngeen pare yeneen dëkku Europe yi tamit ñun Amérique moom ñu ngi ko fi pareel loo xam ne ma su koo gis bi ko yàlla sàkkeeg léegi sama xarit sama gars yi sax dañ ma ne woon bul génnee waaye man moom xam ngeen mënuma ko muñ donc ñun ñu ngi koy xaar mais yéen aussi à tout bord préparé wu leen pour fair face parce que boo boo ko seqee ak bandi bandi ma ci délinquant la c'est un bandi un voyou donc boo ko seqee ak délinquant bandi voyou da ngay préparé wu waa gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm wa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu à tout à l'heure à tout à l'heure